solo aaya ji nag mi ngi wax a goro yi kon ne sëy yu bari tamit goro yee ko yàq te yéen gën a xam lii boo gisee mu wax ko dafa wàcc ci benn góor gu ñu tuddee mànqal ibnu yasaar al musniyu dafa amoon benn jigéenam bu ñu tuddee jamilatu mu may ko asim yàlla dogal ñi sëy sëy ba neex ba ci kanam mu naqari te noonu lay àddunay doxee mu fase ko faseem fayli fayli ko fayli ko ba yedd ja jeex ndaw sa jël ay bagaasam ñibbi ca kër càmmeñam ja góor ga jëkkër ji muy màqal mu a gàddu canam dem di ko ñaaniwaat a góoram nga ne ko dootuma la ko mayati demal nga seeti gëneen jigéen moom mu seeti gëneen góor mee kii ñàkk ngi bëggante ba kenn mënta muñ sa morom na ko duma la ko may mu ne ko lu tax mu ne ko yaa ngi nii bi nga koy bëgg ñëpp ko bëggoon ma xeeñ leen ko jox la ko ngay sàggan ba fase ko yéemoo ci yàlla may la occasion nga mënoon koo fay li ngay toog di yéexantalu ba fay ba yedda ja jeex ba mu xas ñëw ci samay loxo dootoo ca jotati de loola metti jëkkër ji muy màqal waaye metti jëkkër ji kon muy aasim métti tamit soxna si soxna si dellu rek la bëgg waaye càmmeñ ja taxaw ne ko doo dellu yàlla ne ko fi nga ko li nga wax tegoo ko fenn wàcce aay waaye loolu yóbbuwaale ne képp kuy kilifa nga muur sa doom mu sëy wala nga muur sa rakk wala sa mag wala kuñ la mën a bàyyalee sëy ba dem a dem ba ci kanam mu naqari yàlla dogal mu tas jëkkër jëree ci waat la doon dox seen diggante yëpp fas ne ñëwaat pour bëgg nga may ko ko waaye waaye nanga ko toog waxtaan ak moom wax ko fi muy jaaraat ak nu mu koy war a mën a téye rek te nga delloowaat leen bàyyi leen loolu la yàlla bëgg nag bu nit ki kenn du ko jàppee première njuumteem moo tax yàlla indi ñetti fase nga juum ñu jéggal la nga juumaat ñu jéggal la boo xasee juumaat nag dañ laa war a pini waaye première njuumte kenn du ci topp nit waaye soxna si bëgg a dellu jëkkër ji bëgg mu dellu nga taxaw ne ko doo dem fenn te yow doo ko takk ba yow mal xiyaam te kii bëgg na ko delloo ko ko rek nga boolee waxtaan ak ñoom te loolu may wax bari na ci kër yi sëy yu bari tey ba euh, soxna ya jëlee seen bagage yi ñibbi seen baay yañ fekk ci kër ga ñoo ko yàq ñenn ña baay ya dañu topp yaay rek lu yaay ya dogal neex na leen mu wax mu ne demal wax ak jigéen ñi booy wax ak ñoom fu muy sottee ñenn ña tamit seen càmmeñ ñoo yàq sëy ba yooyu yëpp baaxul loo ko koo mënta jëriñoo bu amee ko ko mën a jariñoo jéggal ko ko jox ko ko moo tax mu ne wa ida talaqtum su fekkee fase ngeen a jigéen ñi yéen jëkkër yi ba ngeen leen fasee nag fa balax nañu jot fële moom jege lay firi mais bii jot fa balax nañu jot ajalahu na seen a fala taxduloohu na bu leen leen gàllankoor an yankix nañu sayeg aswaajuhu na seen jëkkër yu njëkk ya isa taraadaw ndem d'accord nañ ñoom ñaar ñëpp bay na hum seen diggante su fekkee d'accord nañ ci ñaari wàllu néeg yëpp seen diggante nañ leen delloo delloowaat ñi ànd bil ma'rufi ci njëkk zalika tere googa yàlla wax leen te mooy ngeen bañ leen a gàllankoor bañ leen a tere ñi dellu te ñoom bëgg nañ yoxasu def na ku ko yàlla di waaree goro bi nga xam ne man mooy goro boo xam ne kaana nekk na min kum ci yéen yoomi noonu di gëm billaahi ci yàlla wala yoom bis aaxiri mujj ba yow goro bi gëm yàlla gëm ala gëm àllaaxira bu sa doom bëggee ne bëgg naa delluwaat jëkkër ji ne fas naa yéene téyewaat ko nu wuuteeg na ma ko téye woon yàlla nee na soo ma gëmee gëm bis bu mu ba rek yebalal sa doom dem ta nga ñaanal leen su ko defee nag daal di loola la seen azka moo gën a sell azka moo moo ëpp yiw lakum wa atharu moo gën a laab wallaahu yàlla yaalamu xam na li nekk ci seen kanam wa antum yéen ñii di leen gàllankoor laa taxlamuuna xamu leen li nekk ci kanam dara kon nag dem leen def li yàlla